أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكو انترنت نور على النور سين بكو شيخ حبيب سك مو نيوا تاي دالن ديكي الاسم الاعظم بو كاي بو ماغ بو داي وار ني تودي كو فادا لا عرقاد صفتي اسم الاعظم لا بو خامي 3361 لا جاب دا ما بغ نين تيولوما تدغلوما ما نيوك يين سي لو غراو غراو غراو amna tey ko rek do nak jamu yalla ci faj aajo ci ci ci ci ci def ak dindi bismillah premier fois bi moy su fekke da nga bëgg genn istixraaju ismulay lansam bi allahu fatahu muhni soko kalkine lim bim lay jox nga tek ci ta faahuuta daahuuta taahuuta mu jox la tur yalla bi ben bo jele hayyul qayyum 174 la nga darbu ko 19 fois di wahidu lim bim lay jox bo ci tege 55 mu jox la tur yalla bi muy ñaar sa fasun 787 787 la nga darbu ko trois fois lim bi mu lay jox nga teg ci muux nii mu jox la tur yàlla bi jàppal sa bara mu ñett la yastaalifannahum 1545 la nga pris ci innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim mu jox la tur yàlla bi nga teg ci almaalu yuhaaniru mu jox la tur yàlla bi leer na la yastaalifannahum innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim almaalu yuhaaniru mu pare boo jëlee itam jamra 243 la nga darba ko trois fois lim bi mu lay jox nga teg ci rab bi mu jox la ismul ahsam bi aywa alquran bi itam noonu lay demee mooy nu ala an nubaddila amsalakum wa nunsiakum fi ma la taxlamuuna 2805 la nga teg ci ñeenti alxaqu mu jox la tur yàlla bi boo jëlee itam yaa 1111 euh, euh, mooy laa taqaaf 1111 mooy laa taqaaf nga darbu ko trois fois lim bi lay jox nga teg ci arafi abajade mooy went bi mu jox la ismul ansam bi kon mbokk mi suru baa ngi noonu kaay nag ma jàngal la koy liggéeyee ci kattanu borom bi subhanahu wa taala la lay jàpp jàngal naa la istixraajam maanaam su mu génnee ma ñëw nag ci ismul ansam bi da ngay jàng fatiha benn yoon jàng astaghfirullah juróomi téeméeri yoon nga jàng allahuma salli ala sayidina muhammadin nabi rahma wa ala alihi wa sahbi hadada ma aha bihi helmu juróom-ñaar fukki yoon nga indi rawaxaanu ñaari siintu tooy tatank yaa siintu tooy halkubeer yaa siintu tooy was xasasu tay haysu nga tek ci ismul ansam bi lan la ismul ansam bi moy li ma lay jangal da ngay jàng fa huta 175 nga jàng da huta 175 nga yu ta huta 175 manam booy jang ismul ansam bi ñetti xaj yi nga koy indee so bari nga tek ci yaa hayyu yaa qayyuum 240 tege téye ko salaatul fatih 33 fois allahu akbar la ilaha illallah seen mbokk Cheikh bi Seck moo ñëwoon tey fii ci Nour wala Nour di jox seen seen seen darso alxames di nuyu di nuyu kilifa gu mag Cheikh Mohamed Ndaw barakala wa sallallahu a sallam ala Muhammad wa sallim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ba beneen alxames ak jàmm